wax dëgg yàlla lu ma métti ci biir Kaolack lu ma nga dem ci ay quartier ba nga daree Koundam dem ba Daaru dem ba Ngaan dem Coofak da gis xale yi nga xam ni ñoo war a nekk avenir u Sénégal teg leen dans des conditions très difficiles ni ñuy jàng jigéen ñi ñi war a yar xale yi nga fekk leen dans les conditions difficiles mm-hmm. amuñu ndox ci nekk setul mu metti ma lool waaye nag ma gis ak fierté ci seen kanam ak mbég seen kanam su ma génnee su leen neexoon ñu jóg di ñaxtu waaye kenn ku ne da tàllal sa loxo bég ba kontaan ndax da ngay yaakaar ne sëriñ bu ñëw na te sëriñ bu bu ñëwee yaakaar a tax ñu am ci moom ndax sëriñ bu defalagu leen dara kon nag maa ngi leen di gërëm leen sax loolu nag ma di ko wax ñi ma àndal dañuy wax ne politique politicien day fiir mais politicien bu cuune mooy fiir gis nga borom xam-xam bu am xam-xam lu fiir gis ngeen Baye Niass kenn ëpp ko xam-xam waaye ba muy woy ba muy wax ci valeur ki ñuul dafa dem jëli wane ne am naa xam-xam mënoon naa wax sama waxi bopp waaye kii tamit borom xam-xam la kon politicien boo cuunee ci ngay may wax ñi ma àndal ñëpp bu kenn fii lan moo ñu war su yàlla demee ñu tànn ñenn ci ñun ñu nekk ay conseiller nañ wax la Seydina Ababacar waxoon daf ne lastu bi xayrikum tànn ngeen meen yéen nit ñi tànn ngeen ma waaye gënuma leen lama leen lam leen wax mooy su ma jubalee dimb leen ma waaye su ma dëngalee wàññi leen ma su ma jubalee dimbali leen ma mooy motiver ma équipe buy dugal nga di ko motiver waaye su ma dëngalee wàññi leen ma équipe bu dem bay dëngal entraîneur day jóg génne ay nit dugalaat ay nit waaye duñ yuuxu ak équipe en entraînement kon ñun li nga xam ne nii ay conseillers lañ ay conseillers lañ ñu ma wax ay futur parce que lii leer na leer na leer na leer na ne dañ minimum man maa leen koy wax fii minimum laa leen wax woo maximum minimum à 70 pour cent incha allah. 70 pour cent 70 pour cent 70 pour cent. waaye nag waaye 2023 su amee ñuy feetu na doon waa Kaolack waa yi jógoon den voté ji ñooñu nañu feetu seen victoire waaye ñun ñii ñu jël teg ñu ci kanam teg 5 ans nañ fanaanee ñaan tiit fexe ñu wax ñu man ko def ndax kat yàlla moo ne yaa ayyuha allazina amanu bu doon wax sax yaa ayyuha allazina kafaru wala mu ne yaa ayyuha naas sax ñu mën a wax waaye yàlla daf ne yaa ayyuha allazina amanu yéen ñi gëm yàlla li ma taquluuna maa laa tafaluuna kabura maqtan inda allahi an taqulu maa laa boobu discours boobu doy na bépp politicien kon nag politicien bu bokkoon ci régime bi passé 2014 wóor na la ne la nga defoo ko kon anta kabura maqtan indallaahi am nga bàkkaar bu rëy ci kanam yàlla kon tey war nga am gàcce taxaw fii naan dangay wutaat leneen li may dégg dëgg la du dëgg la du dëgg yéenewu ma leen ko su ma sañoon ñu def seen meeting tranquillement yéenewu ma leen ko de yàlla xam na ne xoo ma dëgg la xoowul dëgg waaye yéenewu ma leen ko su ma sañoon ñu def seen meeting tranquillement ñu def seen meeting tranquillement ndax dañu nekk ci dëkk boo xam ne nii ci suñu programme ci suñu programme war nañoo mën a wax ne programme bi yëpp boo ko tuddee li may waxanteeg sëñ mun amin saa yu ma waxanteeg man su ma nee allo dana ma Quraysh xam nga lan laa ko wax dama ne ko programme bi yëpp boo ko bindee min ci saaru li ilaafi Quraysh yàlla dafa conditionné waa Quraysh ne leen fal ya'budu rabb haza al bayt allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min xawf yàlla def na leen na ngeen ma jaamu borom borom néeg bii nga xam ne nii na ba xiifatu jëlal programme bi nga teg ko programme bi jëlal rek nga xool boo nee dafa war a nekk ville propre propre ku salt ci mu ne Kaolack ne Kaolack dafa war a nekk liir bu éclairé ku amul li leer tiit ga bu ne Kaolack dafa war a nekk ville mobile nga bëgg dem fenn munoo dem jaaxle nga jaaxle tiit a ànd bu ne dañoo bëgg ñu war ko aménager muy Kaolack ngay taxaw fu ne dara di la fa sene te yaatu na ouvrier yi artisan yi war nañ am place bu yaatu bu ñu war a nekk kon da naan Kaolack sama programme de mi ngi nii bu ko jël rek jàngal saaru li ilaa fray si ba nga ca biir sëñ Mounamine bi nga ñëwee laal xaw moon sax agsi woon nga waaye maa ngi doon li ilaa fi Qurayshin mooy suñu code maag yow kon dama lay jox buñ paree nga ñaan ma waxaat rek ne leen ma waxaat rek ne man am naa confiance ci république am naa confiance képp ku bëgg république bi bëgg nga président de la république parce que président de la république mooy symboliser république bi man ngaa am loo naqar ci moom man nga koo contre kooku conviction la mais ñee li def di yàq di mel ne ay nit dañ fee nekk bien am na fi ñu bokk ak président de la république idée na ñu bokk ak moom vision loolu ci fépp la am yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam Omar ibn Khattab ko daan wax ne soo waxee rek waxal na ci yàlla la jóge ñu nag ñu def waaye bu dee sa xalaatu bopp la tegal ci taabal ji ñu discuter ko waaye yonent bi nag ba mu amul ko bëgg am ci àdduna bi ay nit di jóg wóoluwuñ seen bopp fu ñu waxe di woon diw la fi président teg waaye président bu fi bëggoon a teg diw day changé constitution bi ñu ne mooy nominaire bu organiser ay élection wax gouverneur wax préfet waaye dafa bëgg waa Kaolack waaye ngeen tànn ki ngeen bëgg kon aytul munaafiq salaasatun président su bëggoon loolu day proposé ne day def changer constitution bi nommé maire mm-hmm. amoon na fi dañ daan voté conseil municipal ñu jël décret jël administrateur civil nommé ko mu présider conseil municipal bi kon ñooñu nañ jéem a wax lan lañ mën a defar Kaolack ak lan lañ def déjà waaye nag doo fekk nit li alquran wax yaa ayyuha allazina amanu la taakulu amwalakum baynakum bil baatili wa tudlu biha ila al hukami li taakulu fariqan min amwali nnaasi bil ismi wa antum taalamun loolu rek ku jël aaya boobu xam nga ne Baye Niass mënoon a def ci turu doomam mu jël ko wàccee ko Medina ne ko Medina moom nga dem di jënti jël ko def ko ci sa tur mooy laa tàkkulu am baalakum bay lakum bil baatili kooku sëñ mun amin xam na ne aaye boobu ñooñu lay waxal léegi nag ñun nañ dal nañ dal kaw la ko waa bu ne booy sànni sa carte danga xam ki ngay sànnil war nga ko wóolu wala waroo ko wóolu nañ dal rek loolu laa leen di wax kilifa yi buñ fi ñëwee sëñ mun amin may ñëw war nañoo wane dal kuñ provoqué défendral défendral alxuraan lim ñu wax wa a'iddu mastata'tum min quwwatin wa min ribaatil xayli turhibuuna bihi aduwwallaahi wa aduwwakum aduwwakum wala su fekkoon yàlla aduwwallaahi la yem rek nee na loo am ci doole na nga ko téye taxaw jàmmaarloo noonu yàlla ak sa noonu yow waaye nag nee na wa in janahuu lis-salmi fajnah lahaa man de li ma leen di ñaan danaa leen gagné le 23 waaye danaa leen remercier danaa leen féliciter incha allah. boo xoolee si maanaam yaakaar naa ñëpp gis nañu ko. bala maa tëj nag damay féliciter le directeur de la campagne Cheikh Diaw ak ñim àndal ñëpp le mérite nous revient nous tous incha allah di leen wax tamit ne. kii ma àndal muy Ahmed benn Jelloun mu yëkkati waajaram wu jigéen andi fii ak soxnaam kon am na ñaanu waajur te li ma leen wax wóolu leen ko li nga xam ne nii mooy objectif am liggéey ba Kaolack waa bu ne la nga yor nga am sa këyit ndax këyit këyit moom mooy di nit ñi moom isa da daay dum bi day laa jël mi saman fakk tubuhu laa ko daan et dana wal yaktub baynakum kaatibun bil adli gis nga alxuraan buñ ko jëloon alxuraan rek alxuraan xaju ci bopp nit dëgg la dëgg la yàlla moo ne su fekkoon tey gis nañ du gën alxuraan kon wuute yu bari duñ ci am wala yekk damay kaatimun bil adli loolu mooy notaire na la dem bindal loolu mooy su ngeen seqantee ci alal ci affaire terrain na am kayit loolu yàlla moo ko wax kon nag yéen ñëpp na dem wotel Ahmed Ben Janoub ci département bi ci loolu tamit maa ngi remercier sama collègue sama nattango maire yi ci département bi yëpp ne leen buñ paree ensemble ñu defar benn département boo xam ne nii day département boo xam ne nii moo gën kon sa soxna xanaa ma dolli rek